Seni var yerden. Ini kenal. Ini banyak lepp bëgg xam xam. Ana wax ni ko xari doon TV am vidéo yi ñu duggal chaque jour. Ndax baat bi kau ang koy beli waye ba légui cuaya waccu deg deug te gis nañ ne buñ ko leeralee jaami yàlla yi comme aw làkk la wu ñu di woy di ko wax te xamuñu prix bi suñ ko leeralee jaam ñi prix bi rek amaana kenn ku ci nekk jël ci sa wàll ndax prix yi bari na lool waaye boo ci dem rek boo jàngatee baat yi laa ilaha illallah araf yi benn par benn xam na nañ koy firee ak ni mu nekkee du benn ndax nitu saayir yi ni ñuy firee laa ilaha illallah mooy amul benn buur bu ñuy jaamu jaamu ngay dëgg ñàkk gaa di jaamu di lor illallah ku dul yàlla dañu xool ne baatu laa ilaha illallah amul miim ak keef amul baa amul lay añ ndégal amul deel te defe naa soo dee bind wàllu mulku da bind alif ak laam bind al nu mu tuddati keef doora bind laam wala boog mun ko ngay dem boo dee bind naabudu itam da bind baa bind ayin ndégal bind deel muy naabudu kon laa ilaha illallah laam gu njëkk ga ba ca alsaxeer ga loolu amu fa dafa dàq ba pare saxal nafiyu la ak isbaat lan lay dàq kii raay lan lay saxal ki nga xam ne nii mooy ki sax muy suñu boroom kooku nag dañ ko war a saxal mooy li bàyyi daam di wax sikar bokkut ak gi wirde dañ koo waxtul waaye sikkar dañ koo saxal li sax nag boo ko arrosé ci ngay am meññet moo xam ne dina la doy dund loolu nag baatu olof la te képp koo xam ne da ngay bay di ko xam mënoo te jiwu bayoo li ngay bay itam bala nga koo bay ak saa da koy ji ba pare boo jiyee ba pare dangay am ak ndox moo suuxate da ngay day laaj toppatoo itam ba nga xam ne di nga tàqarle grain bi nga ji bu meññee bu saxee ak ñax mi nga xam ne moo ko war a yàq soo ko xàmmewul nag ñax mi ne ci kawam mooy yàq gàncax gi te dafay mel ni ñax moomu mooy firi yi nga xam ne moo yàq gàncax ak nit ñi nga xam ne moom la ñu war a saxal pour récolter ko mu bu am solo ci biir waxam li sëriñ bi wax waaye daf caa teg ne ku ne ci sa bopp ma balaak sa yëpp nga nga ma balaak sa bopp nga fareeg sa yëpp benn nga def lu baax ba dem jinaani wala nga def lu bon ba dem yi mu ne ahasanallaahu mi ne niiraani gis nga sëñ bi kon dafa maanu am na ñoo xam ne dañoo ne ci moom ba pare ne ci seen dañoo koo jox seen bopp ba pare ne ci seen bopp te boo joxee sa bopp la mu saa wax dangay ngay jeex ci sa bopp te alxuraan waxoon nañu wa man naka sa fa innamaa yankusu ala nafsi yi mooy nit ñi dañuy joxe bopp rocci làmmiñ parce que jébbulu li am Seere Faal waxoon mbirum noobul la nit bu ñëwee jébbal la boppam ngir yàlla boo ko déggee responsabilité la boo xam ne bala ngaa lekkati ba regg wala nga naanati ba nelaw war nga ko wax antaw wa ko comme ni Cheikh Moussa wax dama la yóbbu ba ne la yàllaa ngi toolam baa ngi nii ci lay gërëmee ku mu gërëm te gis nga niiraana boobu nit ñiy daw ñu ngi koy daw te ca la ñuy tàbbi ndax sëñ bi dafa waxaat ci bayit ne wa in takun akala risqa laayi wa anta fii kulli samani laayi walan tatub li talabul fa daa fa mujtahidun fa daaxilu niiraan yi mujtahidan fa daaxilu niiraan yi kuy lekk wërsëgu yàlla di fo te tuuboo ko ba dee dangay dugg safara la sëñ bi woon waa léegi nit ñi li ñuy lekk wërsëgu kana kon koy jiñ buñ ko lekkee ba pare yow lee saa yu ñàkk dikkee ak tar-tar nga ne yàlla saa yu jàpp na dikkee rek nga ne diw loolu moo ci Sénégal kuy fa sax bu sa mbir jollee nga gis ku taxaw ci télé bi na maa taal maa ko ñaanal maa tax mu nangam kon ndekete problème am na boo xam ne nit ñi ki ñu woo ki ki woote li mu woote sax xamuñu ko lam ca teg mooy laa tàggaloona abal risqal illaahi fii kulli xiinin suma taabudu si waaw bu lekk mukk wërsëgu yàlla yi bépp jamono ngay jaamu keneen ku dul yàlla te ku xam leneen lu dul yàlla dinga nga dee yàlla keneen ku dul yàlla kon xam yàlla mooy génne nit ci jaamu ku dul yàlla kon am nañ sas boo xam ne mooy suñu ndigal muy yëkkati baatub laa illaay illallah ak waxtaane ko ndax baat boobu comme ni ko maam Thierno waxee moo gën ci lépp luy bàyyeekoo ci làmmiñ làmmiñ nag du moom rek moo am ci jër cër ci baat bi kon lépp lu ñuy teg bët laa ilaha illallah moo ci gën te moo gën a feeñ loolu parce que mooy li sax nit ñi lu nekk xam nañ ko lu nekk jàng nañ ko ñun ñu ñu mag a ngi fii ab surnu àll ba dàq noo jaamu yàlla ci xibaadaatu fiq ba ñu dalee naafila ak a jàng alxuraan boobu ñun juddooguñu ñun ñu dajee kilifa jël baat bi ci ndigal di wax ci ñu baat bi lu leen jaaxal te loolu di dëgg te buñ ko waxee buñ demee ci téer yi jàng fekk ko fa mu layal ko waaye mënuñu ko fànnaane kon ñu xam ne ne ñun dañoo am kilifa kon nekk te gënante mbindee fii ci kilifa yi la kilifa googu nag mooy Cheikh Moussa sa Ndiamé boroom daalu moom mi wax ne li ma yàlla yoor ci jottali xayrul ne ca Màkka teg ko ci loxo Xaadim Rasul muy jëwriñam Xaadim Rasul yoor ma ko ci daaru mu yëkkati ko ca kaw ne ku bëgg na ñëw jël duma ci tàngam lu duma ci dellu ginnaaw te kanam la jëm kum neex kum naqari loolu nag ak ñun ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko wuy si woon te damay wax ne ñun dañoo am jagle parce que li ci mag ñi doon daj démb ñun dajuñu ko ba pare kon dañoo dajante kilifa gu laabiir ab tab boo xam ne nii moo waxoon ne maa gën a tabe yàlla te loolu saa yoon xoolee gis ko bu jëkkoon dañ naan ndaw du xam yàlla wala murit sax du xam yàlla yeneen taraxe yi loolu lañ doon wax kon Cheikh Moussa ñun war nañoo koo sant ñun ñi nga xam ne ak saa dañ koo wuy ji di ndaw te nekkoon ci tarixa ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ay boroom karaw gu ñuul takk ñu ñu fenn yeew ñu fa tardee wuñ ñu ba ñu bijaaw te joxuñu ñu dara dañ ñoo jox yàlla ba ñu yëg ne yor nañ yàlla ñu libéré ñu dem leen jaamu ma jaamu ku dee yàlla fay mu war des nag ak saa delloo njukkal mu yëg ki nga xam ne moo ñu defal li ñu am ba duñu wuyoo keneen duñ joxeñ keneen ku dul moom te duñu yëkkati lenn di ko teg ci baat bi ak lu mënti doon lu ko nit ñi rafetal rafetal seet bee rafet la rek waaye bala ñu ne seet bee rafet seet daa am ba pare kon dañuy am li maam Thierno wax l'islam inna diina inda laayil islam man yabtaqi xayra islaama diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil axirati minal xaasirina inna diina inda laayil islam suñu sëriñ bu baax bi radiyallahu anhu da cee waxan benn xikma bu bu doy bàyyi xel muy sëñ Keeba Kebe mu ne man yabtaqi xayra islaama diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil axirati minal xaasirina inna diina inda laayil islam mu misaal ko ci gouvernement Sénégal bi gerte la joxe joxe engrais na bay leen waaye di dem jënd ñebbe jënd ak ay bisaab jënd la neen bay ko waaye moom du jënd loolu gerte lay jënd kon nag yaxantu yi ñuy yaxantu ci xeetu jaamu yàlla yi pour ñun la waaye du pour yàlla yàlla li mu soxla mooy xal bi salim xol bu mucc lan mooy setal xol bu fekkoon ne julli mooy setal xol wala woor wala asaka wala ay dem màgg ak ñëw kon nit ñi nekk nañ ay wàllu yu waaye ñi ëpp dañuy def loolu ba pare nekk wuyu mooy liñ doon wax keroog ñàkku rab moo tax Sëñ Moussa wallaay amuñu fayam paa yu màggat nekk ay imam bi ñu toogee waxtaan ba pare imam bi moo dikk taxaw seede ne li ngay wax nii bërki démb damaa toog maay imam bi sama benn morom dogale ma ne ma li ma jaaxal man jullit laay laajte ndax ñun ñoo bokk jàkka ji te ku summi sa dàll yu baax ci biti boo boo boo paree doo ko fa fekk te ñi julli si woon ñoo koy indi te ñu ne julli day tere lu ñaaw ak luñ sib ñu ngi julli mais loolu laaj la boo xam ne war nañ koo laaj képp kuy julli julli day tere ñaaw ak luñ yow ngay julli ren ba déwén mënoo bàyyi lu ñaaw bàyyi woo luñ sib julli moo baaxul wala yow yaa baaxagul wala ni ngay jullee moo baaxagul julli kay baax la waaye ndax yow baax nga wala ni ngay jullee baax na ndax yeneen bi suñu exemple te yàlla wàcc ci moom julli Baye Serigne day wax wax ju xoromu te leer julli wàccut yeneen bee yéeg te yeneen bi bala moo julli dafa riñaan yow nag dangaa ñëw di julli te riñaanoo sa julli mënul baax te yeneen bi dund na ñaata at door am wax yu ca xaarul xiraa bi mu jotee nu bu woo wax nañ ne woote na ci lislaam fukki at yi yu ñii ne fukk ak ñaar ñii ne fukk ak ñett te julli amul kon lañ lañ doon jaamoo yàlla te ñi ko toppan ànd ak moom di yëkkati lislaam di xeex dañ doon reyante ñu leen di rey lan moo taxan nit mucc démb wax laa ilaha illallah am déet lan moo taxan nit ñu mu ñoŋ ñoŋal alalam mooy mu wax laa ilaha illallah ku ko waxul dañ la doon rey te boobu li ñuy jaamoo yàlla amul te nit ñi ñu ngi doon wéetal yàlla di ko kennal nit ñi néew nag ak saa yonent bi yéeg jëli julli nit ñi di julli te ñoom yéeguñu demuñu fenn moo tax julli mënu leen a yéege waaye julli képp ku yéeg boo jullee mu yéege la ndax ay pays la yoo xam ne nit moo koy sante yàlla moo tax Cheikh Moussa li wax dëgg la de nañ ko wax julli du jaamu yàlla julli sant yàlla la ndax moo boole jaamu yàlla ak jaami yàlla yi sant yàlla la ba nga kàbbaree ba bi ngay sujjóot pourtant boo wàccee moom nga yéegewaat ni ngay wàcce moom nga yéegi yéegawaat te wax nañ ne àjjana ay xur la euh, àjjana ay étage la safara ay xur la nga xool booy julli ni ngay wàcce ak booy booy booy yéeg ni ngay yéegi te kon ndaxte gi kon julli riñaan sax mu ngi ci nga xool étage yi ak xur yi ku leen xàmmewul na daana ci xur wi loolu booy dëgg te Seera Faal dañoo waxal ne julli yër sa bàmmeel la yër sa bàmmeel nag am loo ci def da koo gën bàmmeel yooyu nag la nit ñu war a xàmmee am na bàmmeel yi suufee yoo xam ne mooy li may wax chaque jour nit ñi faatu ñu denc leen ci armeel ya bu dee fu mu doon ci kër lislaam yi buñ leen fa yóbboo medd lañ fa yóbbu te yóbbuwuñ fa nit nit foofu du ak armeelam te mbooleem li may wax ku ko weddi néew ba nga dencoon daaw demal fa nga ko dencan bu dee fu mu mënti doon ci kër diine yi nga gas ba xam di ko fekk kon nit ñi ñëw denc fuñ ne kon bàmmeel boobu Seere Faal doon wax nañ ko xàmmee te dafa waxoon ne moom kat bokkuma ak sëriñ si nga xam ne suuf day soppi seen jëmm ba seen taalibe du leen xàmmee ëllëg man nii ma mel ëllëg noonu lay mel suuf du ma changé waaye gis nañ ni suuf di soppi seen jëmm ki yaakaar sëriñam ci benn comportement mu dugg ci suuf su soppi jëmmam tëggaat ko beneen tëgg comme ni ngay joxee ak saa tëgg bi sa jaaro bii mu dugal ko ci upp yi xelliwaat ko ba mu nekk ndox mën na cee def sax jargoñ wala mu defal la ci këru jiin pourtant jaaro bi la yàlla ku ko dàq kon bu fekkee ne nii yow da ngaa réeral dugub dem di ko wër ñëw ba ci kër ñu ba ñu ñu ko wal ko toggal la ci cere nga lekk ba suur tey wër dugub di nga gis dugub moo tax ñu bari ñu ngi xaar seen sëñ foo xam ne duñ koo fekk buñ ko yaakaaree ci comportement yi dañuy perte nañu xàmmee te xam ne li ñuy yaakaar ak li am bokkul di ñun loolu lañu seex Cheikh Moussa defal moo tax jaam ñi dañ leen a ameel àq muy wax leen yàlla te ba leen ak yàlla waaye nag nañu moytuwaat nekkaat ak ñoom ci ci ci ci ak xaritoo ak ak maas ak ay wax yoo xam ne nii du loola ba su leen a waxati dëgg gis nga kiiraayu ragal kiiraayu rusa ko gën a bon kiiraayu ragal kiiraayu rusa ko gën a bon te nit ñi mën nga seet ak ñoom ba rus leen wala itam ngay ànd ak ñoom ba def loo xam ne nii bu ëllëgee yow mi leen wër a jubbanti mënatoo leen a jubbanti moo tax ñu doon ku ñuy wax góor ca góor ña jigéen ca jigéen ña caapaa ca boo mënta dem ba boo demee ba mënoo ànd ak nag akasa kasaa nu mu ko waxee góor ñi nga dem ànd ak jigéen ñi rek góor ak jigéen nag du awra fu ko raw la waaw aw du awra fu ko raw la moo tax nañu takkaat laxasaay yi te xool li Serigne tuubaa wax ci nitu yàlla yi fukk yi nga xam ne moom la ñu war a gànnaayoo benn bu ci nekk kenn bu ci nekk noo ci war a taxawee taarixahum hasratun jaaxat lawaasimuha la budda min ha li irbabil aradati ma maqsadu wax woo maa yufdi ila safar min ha dalilun ka seexi sil futuha fukk la ku leen taxoon nag di nga dajee gunti nammeel ya mu ne nga am ak jublu koo xam ne dina la pijji wommat ca tukki ba kon safar tukki la kuy voyagé nag nee na dafa am yoo xam ne danga ko war a gànnaayoo fa maxsadu waxoo maa yufdi ila safari min ha dalilun ka seexi sil futtahaati wa saadu waxoo tuqaa min ha silahahumo waxawal wuddoo ulla si yan fii najaasaati kon yóbbal bi mooy ragal yàlla te nit mënul ragal yàlla te xamul yàlla yóbbal bi ragal yàlla bokk na ci lan ngànnaay ngànnaay li mooy jàpp jàpp ak raxas ay cër du benn seere fal dana doom daa fekk kuy jàpp mu ne cey doom ndab lu tilim ngay raxas biti ba bàyyi biir bi te dee sut yëkk ci biti bi fan la ñuy yëkk xol bi ngay raxas cër yi te cër yi li nga xam ne nii loolu nga ciy raxas setalu ko ndax set fa mu nekk ndox àggu fa te cër yi liñ ciy gis ba di ko raxasaat loolu moo sos cër yi am déet gis nga ko te bi nga koy bi nga koy utiliser dafa nekkal lu sell saa yoo ko dee génne ñu ne sobe la du sobe sa bit la hakka sa kon nag ak saa naka la ñuy def ba ragal yàlla naka la ñuy def ba jàpp te bàyyi tiim bi nit ñi dañoo tiim mais jàppaguñ def gis nga mag ñi nettali lañ loo xam ne su fekkee dëgg la ñu xam ne lii ñuy wax amul waxu a yoonu murit wi nga xam ne moom def nañ ne ku ci nekkul nekkoo ci dara ba dañuy kajj sax ñi ci des te loolu amut du dëgg wax nañ ne sëriñ bi mas naa toog yónnee ab kaamil loolu booy na nopp yi mag ñi kenn ku ci nekk dem di wuti sa tala di jàpp Seydou Fall kaamil bi jox sëriñ bi fekk am na lu mu ci doon jàngale mu bàyyi ba ñëpp toog mu ne ko Sèvres Fall lu tax alxuraan yàlla ju màgg ji ma laaj ko ñëpp di jàppi nga ñëw ne ak saa da ngay jël kaamil bi mu ne ko ah ñoom doom dañoo tilim man nag bi ma jàppee ci yow laa seet wicc loolu loolu su fekkee dëgg la nuñ koy déggee kon jàpp ak tiim du benn kon nag jàpp dafa wér gis nga ko ak ban loxo itam la ñuy jàppee te koo wax mën a jàpp ci yàlla. mais nit ñi nu ñu nangoo jàpp ci yàlla tey weddi gis yàlla jëmm juñ mën a jàpp kay ak loxo bi koy jàpp bët war na koo mën a gis parce que loxo biy jàpp ci jëmm la ne na ci siraaju làmp bi sikiri laay jàll ala kon lampu bi mooy tudd yàlla kon ñu fonk tudd yàlla ci toog ak taxaw muy guddi muy bëccëg ndax mooy làmp bi ñuy niital ba ñu mën a xam fi ñuy teg suñ tànk parce que tukki bi dafa am ay ndog ment dafa am ay lëndëm boo yorul làmp nag mën ngaa jaawale kiiraay yi dafa bëri te kiiraay yi ak saa yi ci ëpp sa bopp la ne boo dégaasee yi ci sa bopp ba pare door engagé nag yi ngay jàkkaar lool te sama classe gi mënu mënu ñoo tàqali koog sax yi nekk seen biir bopp nit jëfam sax dina ci nit mën dem ba ñàkk gindeeku kilifa gi mu àndal sax nekk ci kon làmp bi moo lay dimbali ba nga xàmmee lenn lu ci nekk comme ni ko Cheikh Moussa waxee xam yàlla xam fam teg yonent ba war na ku ne ku leen xamut yàlla mun xam kooko yàlla mu ne kon nga yëg ne yonent daa am fuñ ko teg rek kon kilifa gi sax mën naa dem ba sa kiiraay sa diggante yàlla parce que xamoo luy pas-pasam ci ànd gi mu ànd ak kon làmp bi nañ ci góorgóorlu pour sikkar xam ne ñun ñii bu ñu laalee yàlla am na ku tax ñu laal ko dafa am akasaa ni sa sëñ Aliou wax nañuy jaamu yàlla te roy yonent bi waaye buñ jaamu yonent bi roy yàlla yàlla kenn du ko roy sëñ Aliou mas naa ko dégg ci nañu bàyyi xel kàddu googu roy yonent bi waaye jaamu yàlla waaye bu ñu mukk jaamu yonent bi bëgg a yàlla yàlla kenn du ko roy te sama classe gi noonu la ñuy def mina siraaju bi zikri laay jëlaay minal mataaya bi himmatin aliyaati lii nag bokk na ci yitte waaw lii yitte la parce que damay wax ne nit ñi ñi du ñuy weddi li ñuy def dem dem taxaw julli vingt cinq minutes par jour bàyyi ko moo ko gën a yomb nekk ci laa ilaha illallah li yonent bi wax ne mooy li gën ci li ma doon wax di ko waxee ba pare teg ci sa tànk di ko jëfee tey xale yu bari ci àdduna sonalu la nit ñi lu nekk ñu waxal la ko nit ñi léegi sariya yëpp dañ ñu koy jëf rek pour wàccoog nit ñi pour ñu ne la yow jullit nga rek lool nga ci am mais xooloo baax na wala bon na kon yitte yi waruwaay wi ngay war dem ci yàlla comme da nekk ci voyage di mooy yitte kon bu ñu xeet yu mel nii mooy ñu yéege xel nag dina liggéeyloo nit ba mu toog sama classe gi ruq boo nekk ne foo nekk daayira la du benn nañu def yitte tey dem ci daje yi saafonte bi am na luñ ciy jële loo xam ne mën ngaa toog sax ci sab der di ko di te doo ko am kon buñ ko xeeb nañu am yitte ci yàlla <coughs> minal mataya bi himatin xale min xal hokkaasu bi xajji si wala xisaamu la daal ahli tarixa ci xasmun bil xaqiqati kon sukkandikukaay gi gis nga ko moo tax li affaire yi sama classe gi chaque jour war nañuy xoolaat li ñuy def ndax sukkandikukaay bi nga xam ne mooy dokk bi ngay sukkandiku mag mi bu demee ba ay tànkam naqari mu ne ko sukkandikoo pour dëgërloo ko mooy yet boobu ñuy wax kaan mu ne bokk na ci ab dokk booy sukkandikoo ñu ne ko lan mooy dokk bi mu ne mooy lot ci lépp xam ne yow sa njàmbaar sa pastéef sa yitte sa làmp du dara lu la ci mën a yóbbu yàlla rek ngay bàyyi ak lépp bi aj wala xisaam ak takku laxasaay laxasaay googu nag mooy derug Baay Faal du laxasaayu saayer mooy dogu mooy volante li nga xës soobu jëm ca dara du dox sa digganteeg moom comme ni ñu waxee ne yow boo xësee kabar kabaru armal saatir ngay def doxale sa digganteeg sa borom saatir boobu day tax kenn du dox sa digganteeg sa borom loolu saayer la waaye sa pas-pas sa volonté kenn warut a dox sa digganteeg fi nga war a sujjóot te yàlla moo ñu wax ne bu leen sujjootal jant bi bu leen sujjootal weer yi waaye sujjootal sujjootal leen yàlla laa tas juddoo li samsa wala leel xamar waaye us juddoo li laay kon su fekkee dañ noo nax ne da boo waree julli da ngay teg benn bant bu toll ni xasab sa kii pour bañ ko sa diggante yàlla diggante jaam ak kenn dafaa xaj kenn waru faa xaj kon nag na nga ba lépp lu la traversé bëgg dox sa diggante sa sa pas-pas na nga ko na nga ko kajje bu dee lu mënti doon nag ak lu mu rëy rëy bu mu sa dox loolu moo waral derek bay bay faal koo gis mu takkaayoo rek mu ngi ci service moo tax ba ci armée bii sax gis nga ko soo demee nekk militaire dañ lay jox tax takkaay boobu te dañuy contre ak tarbiya ak laxasaayu ak ak ndonga te ñoom boo demee ci armée bi jox leen ko nañ fa daj loo xam ne ab ab ab ndonga tarbiya nga duñ sumi ma xanaa ñu gisee seen kilifa duñ ko tóojal duñ ko jox ay war maa ngi teggi loolu du lan la dañuy tarbiyewu lu ñuy wut garaat boo xam ne ak weñ la dañ la koy takkal te du du jàll ñun ñuy wut maqaama boo xam ne nii dañ koy yëg dañ koy yóbbaale kon bu ñu kenn indil complexe nañu xool li nga xam ne nii mooy suñu volonté waaye du ak der ñuy takk di di xërëb xërëb de mooy dogu gi takkaayu xisaamu daa ahli tari xaqi xaasumun bil xaqi mooy dogu gi nga xam ne nii mooy ñun tarixa yi li ñu dogoon ومن لوازمها من آجها أبدا وهي السريعة في بطح فهيات بوكو نجي سينو وار وار ينك كوي سوو بتي يون وي داغي ديار كي سريعة بسنو سريعة موي لو يونال موي اي تيغين نك موي تاخ اك سا دو دامي واخني بو جيمي تي دك موم خامنا دك بي فيلا تول من نغا فدل دم دي waaye mën ngaa role dudul feeñ bant mën na laa jam nangam mën a caam nga jaar ci yoon nag te xam ne yoon yi moom egg rek nga ci bëgg waaye ku jaar ci yoon nag war ngaa egg ci dëkk dëkk ba nag moo di yàlla moo tax ñu ne yàlla du dëkk waaye yoon wu jub moo fa jëm yoon wu jub woowu nag mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku nag la ñu rey defe ne nekkatu fi te képp ku fi nekk ñu yaakaar ko wala boog ñu topp ko mu pour mu jóbbu nañu ci yàlla bu dee kilifa gu nekk Sénégal la kenn ku ne nee na yonentu yàlla Muhammad la jëflantee kon ndax ka faatu la kon sew-sew am na foofu boo xam ne nit ñi war nañ koo lijjanti te mënuñu koo lijjanti ndax am na loo xam ne boo ko bëggee lijjanti te amoo tontu li da ngay lëj moo tax dañ naan nañ ko ba noonu rek waaye chaque jour nag mu ngi ñëw ci sa bopp mu ñëw sa bopp moo tax nag dañoo war a laaj buñ xamul ñoom laajatuñ nag ba ñu xam takk ay rajo di wax ñu di leen di gàllankoor wala ñu di leen di bañ a déglu te kuñ tàngal boo naanee ndox mu leex mu set mu leer ngay naan soo naanul nag akasaa di nga am ndox mu nëx moo xam ne dinañ la ko jox nga naan ko parce que naan mënta ñàkk naan moom mënta ñàkk parce que nit ñi moom ñëpp ngi wax ñi xam a ngi wax ñi xamul ñu ngi wax ñëpp a ngi oote te ku woote nag am mbooloo mu la toog xooy-xooy ji bari na organisé bi bari na boo amul fit sax te gën te te gëm li nga yor da ngay jékki ba càngane est-ce que li nit ñi yor du dëgg ndax nañ ko fonke ak nañ koy rafetale ak niñ koy taarale pour jaay ko jaami yàlla yi kon nag ñun ñun ñoo war a mën a góorgóorlu pour li ñu yor ñu xam ne am njaay la moo xam ne dañ koo tàllal jaami yàlla yi pour ñu jaayanteeg seen borom bu ñu amee seen borom tonawu képp ku am lu mu rëy rëy boo amul yàlla la nga am du am am loo ñàkk te am yàlla yow yaa am parce que nit ñi su fekkonte ne nii li ñu am ak saa jariñ na leen doylu nañ mais xoolal Sénégal ku la fi ëppale boo leen séqan ñaari dërëm yaa koy bàyyeeg moom parce doyluwuñ te kenn ku ci nekk seex Moussa li wax am nga lu sa maam amul dem nga fu mu amul lekk nga lekk gu musu dëkk nga ci taax mu mënta dëkk te moom moo la gën a daal dund kon jaam ñi lan mooy seen fitna ëppalante ëppalante lan du ëppalante njub du ëppalante mbaax du ëppalante yar du ëppalante teggin waaye ëppalante alal la te def defe nañ ne fitna ku ëppale nit koom rek yaa ko gën te Sëñ Tuubaa waxoon nañu faalam bi annama tafawutul bara min al ilmi wa diini fa fiihima yafdalu man xat fudila laa bi tafaquri bi xawin fudila xanaa dañoo bëgg a weddi ay waxam xam-xam mu ak diina lañuy ñuy gënantee waaye nag du ay ay maam yu baax ak nangam nangam yax bu rëy maam Seera Fall waxoon na ci ak ak ak taarix bu leer ba diw nikkee na yax bu rëy la bokk def koo feesloo aw na tojte ko ba pare di tàggale yàpp ak ak ak ak yax yi daal di jël yàpp yi togg nit ñi xiwloo ko mu def yax yi ca ca ca ca daal di yónnee ca nit pour mu xewloo ko mu ne ko fi ay yax rek laa fekk mu ne ko yax bu rëy bu taxut dara nga ko yax bu rëy bu taxut dara kenn soxlawu ko ak sax kon nag muy gudd te it daanaka li ma Thierno ubbee mat na sax ñoo ngi tënku kàddu yi foofu di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. suñuy jaar jaar daal danaa wax ni su ko xari doon jar ko am. abonné wu seen YouTube bi Ndiamé TV bësal na station bi foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.